commencé wul tey commencé wul ci affaire Mame Mbaye Niang affaire Mame Mbaye Niang dañ ko sulli parce que yeneen yi yëpp daanu nañ complot bi ci jiitu mooy kii Ousmane Sonko mi bu leen ko bàyyi impôt boo leen ko bàyyi impôt ñun li ñuy def yëpp impôt la jëm dinañ xam li ñuy def parce que ñoom préparé nañ seen coup mhm. seen luubal yeeg seen affaire yi yëpp préparé wu nañ ko seen makk suuf ak seen seen seen seen makk jën ak seen makk ngelaw parce que ñoom dañoo jër air terre ba sous ñu ne ñii kii boo leen ko bàyyee foofu ñun luñ bëgg def duñ ko def Paasan yaa ngi may waaw ñu ñu ne nañ ko jëlee impôt yow ñu ne nañ ko jëlee impôt ñu def tout ba jëlee ko impôt dàq ko Moustapha Diakhaté muy wax moo tax damay naan Sénégal la neex Moustapha Diakhaté mooy wax Moustapha Diakhaté mooy wax quoi Moustapha Diakhaté quoi mooy wax ñu ne non kooku porté combat pour ñu dàq ko ñu ne noo bu leen ko may beneen yoon boo xamante ne fa lay waxee ñu ne assemblée nationale foofu kàddu yam fay wax c'est forcé parce que ay minutes dañ ko koy jox mais bu leen ko mayee fu muy waxee ñu ne nañ ko fa jëlee ñu jaare ci koo xamante ne ñoom nañ dañu ne dañoo taxawu Sénégal pour defar Sénégal ñu jaare ci ñi ci leen gën a jege pour que mu bañ a nekk président euh, euh, député ñu jëlee ko foofu ñu ne nag léegi moom Ousmane Sonko nañu fexe ba bu du nekk candidat Ousmane Sonko mu ngi dugg ci politique pratiquement 2017 ki la nekk député benn cinq benn forest ñu ne non kii mënul dem 2019 mu ñëw nekk troisième ñu ne ah kii nag jot na nag ñu fexeel ko nag. 2019 mm-hmm. bi mu nekkee troisième ak quinze pour cent ñu ne mais kii président Macky Sall yow bi nga ñëwee da nga ñu ne woon kenn du la opposé am na kuy ñëw nag di la opposé parce que bi nga nee kenn du la opposé da nga tëj Karim Wade tëj xalifa Sall. ñu ne jeex na parce que Idrissa Seck am na fu ñu ko téye du opposition bi du yàgg kenn ñëw na de ñu ne kan la ñu ne Ousmane Sonko jékki-jékki mu am 15 pour cent ñu ne kii nañ ko fexeel fexeel boobu nag amuñu beneen yoon bu dul mbirum Adji Sarr hôtel bañ ko tëggee sax complot ba xam naa ko fañ ko nasee xam naa ko ña ko nas xam nañ ko lu tax ñu pré pré dossier bi lu tax capitaine Touré démissionné comme maa ngi doog am chance toog ak ñaari journaliste ah. euh, Pa Assane l'affaire Adji Sarr mhm. a divisé la presse a détruit la presse ci mhm. ni ñu doon traité l'information affaire Adji Sarr mhm. j'avais l'impression que y a eu deux camps dans la presse oui. les pro Adji Sarr ah. et les les les les, les anti Sonko euh, yow mi nekkoon au cœur de l'action comment tu as analysé le travail de la presse ci moment yooyu noonu. man man sam problème xam nga Samba bu ma ko déglee léegi nii Samba Biak bu ma ko déglu léegi nii je sens ça maa ngi sentir sa révolte amul gën a sof si àdduna mooy nu toog fii bokkum di dox ay activité moom yëgul li mu ngi ci activité am man ak Samba bu yàgg ñu toog naan ko mais saa yaa ngi koy xool saa yi foog ñu téye ko de. waaw bandi. c'est comme ça non saa yi. affaire voyou réglé ko. saa yi kii dafa nar ah. ñu fàtte yàlla. Mhm. te kii li kaa dimbali sax mooy moom newul ñeen yéen a ngi nekk di ko waajal moom mu ngi feneen. Mhm. parce que yàlla mooy jël nit teg ko ci yoon. boo ko yéenee jàmm yow. dégg jàmm. Mhm. boo ko yéenewul jàmm yàlla mi ko teg ci yoon moo naan xaaral. yow sax ma régler sa problème. Mhm. loolu moo dal APR. ce qui s'est passé c'est quoi man problème bi ma njëkk am dès qu'on a parlé de cette histoire de de Adji Sarr au début du tic au li ma njëkk a alerté c'est mais pourquoi le capitaine bi def enquête bi bi yore dossier bi war a am jafe-jafe. Ah. kooku warul am jafe-jafe. man loolu moo ma moo ma perturbé. c'est-à-dire oui bi capitaine commencé oui ñu ngi may topp ñu ngi may kii oui ma ne waa Adji Sarr kay moo war a ne man je en danger capitaine bi di ko protéger ñenn ci ginnaaw pro capitaine bi di protéger capitaine bi capitaine bi am wéeruwaay pour sécuriser ko dalal ko ki nga xam ne nag moom la ñu jiiñ ñu war ko woon ne ko kaay leeral tranquillement a mm-hmm. partir de la gendarmerie ak certificat médical man pour man wax jooju si maintenant dès lors que ça a dépassé capitaine bi commencé am jafe-jafe quelqu'un comme moi moi j'ai dit position net tout de suite doute doute boobu nag peut-être moo ñu conduire ci jël position en faveur de monsieur Sonko sans réfléchir dafa am ñaari affaire yu xaw ci Sénégal coronavirus ak l'histoire de Adji man personnellement à Sen TV j'ai pris position en amont tout de suite mm-hmm. parce que ku xam tubaab ni noo fonctionner toog di analyser ci logique benn du luñ la jox rek nga gëm ce qui s'est passé sur Adji Sarr bi capitaine bi commencé di wax sentir ne mu ngi nekk en danger nga boole loolu boole ko ak benn rapport boo xam ne Pape Alé a super développé dessus mu waral ñu téye ko après mais ma ne y a problème ci contexte boobu nag malheureusement APR bu ñu amoon conseil dañuy arrêté bu ñu amoon ku ku leen di wax dëgg naan leen déedéet dañuy taxaw gëm yàlla. pourquoi ñu waroon taxaw. mais nite. Ah doon nit ba nite. seen dil bi setul. parce que. dil bi jaar eh, setul. voilà setul c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il bi setul yow loo xanaa ku muus boo dee dil dil bi setul nga war a bàyyi dil bi. ay yaa ngi fi fan ñëpp gis ko. Adji Sarr di def ay audio di ah, ba pare xamal lan moom ma def ay ree damay toog mu yàgg ma ne mii mais ñii xanaa seen biir ñoom amul kuy xalaat. mais en fait en fait pour vous les les personnes averties les observateurs yéen ñi nekk ci rouage yi nga xam ne ci la yenn xamoon ngeen ne dil bi setul. yéen yàlla xam ngeen ko yàlla sede na mais dama la bëgg a wax ne pour quelqu'un qui. qui ne sait pas qui fait confiance à la presse. oui mais ce qui s'est passé Samba tu sais c'est quoi. Mhm. pour quelqu'un qui fait confiance à la presse man nit la avant de parler de presse doute bi ma animé ba ma commencé di gëstu. la chance que les Sénégalais ou que le Sénégal a eu ce sont les réseaux su presse bi tegee info léegi Sénégalais bi am na choix entre presse bi ak réseaux sociaux yi. Mhm. qu'est-ce qui se passe presse bi daf kaa wax lii mu tourné gis leneen ci réseau yi mu ne mais léegi boo xoolee ñaari info yi bi gën a nuru dëgg ngay adopté. Mhm. te bi gën a nuru dëgg day nekk dëgg logique la. Mhm. fi nga xam ni presse bi mu ngi noyé le capitaine di noyé Ousmane di noyé keneen. les réseaux disent capitaine bi nee na lii nii la demee Alfousseyni gay nee na rapport euh, euh, kii ba nu mu tuddati certificat médical bi lii moo ci ne nii la demee affaire yi commencé di bouger léegi ki nga xam ne dafa amoon confiance ci presse bi commencé affaire bi di effrité wu. Mm. muy commencé naan journaliste yi seen affaire leerul de looloo indi désamour bi avec la presse. malheureusement la presse au lieu de se rendre compte que fi muy dem baaxul les gens sont restés à carreau pourquoi parce que la presse est dans la précarité Samba. parce que la presse sur le plan économique c'est un drame patron de presse il a préféré gérer son business ou certains ont préféré gérer leurs affaires dans les rédactions bu fekkee ne benn Baye la am problème francs il préfère. mais kon ñoom xamoon ne affaire bi baaxul. non non xam nga bien sûr. xam nga xam nga d'ailleurs xale yu ndaw yi sax xamoon nga xam nga d'ailleurs. pourquoi il persiste il nga xam nga a une y a y a la fameuse réunion du palais. La fameuse réunion. La a une, y a une, y a une, y a une réunion. Il y a une réunion d'urgence à 3h40 minutes. C'est la fameuse réunion du palais. Ça, réunion extraordinaire. Entre, qui et qui le président qui? la République, le ministre de la Justice Malik sal les deux autres qui cités dans l'affaire, mais également avec, euh, comment il s'appelle, euh, euh, le ministre de l'Intérieur. Qui Moutoudou. Antoine ah. Antoine Antoine. Euh, non non non non. Euh, c'était c'était Ali Ngouille Antoine Diome Antoine Diome Antoine Diome il était il boobu il je pense il n'était pas encore ñoom ñoo def la réunion. et cette réunion c'était pour revenir justement ci li ngeen wax ni bàyyi. <laughs> pour ñu bàyyi. waaw parce que la patate était très chaude. il ñu bëgg bàyyi am ñi kon ñu ne non non non nous on va gérer. les radicaux les radicaux ils ont demandé ils ont voulu que. Euh, ils ont voulu parler au capitaine Touré capitaine Touré le lendemain justement le lendemain le capitaine Touré dem yoonam parce que il voulait lui parler coûte que coûte pour que mu inculper mu def tout ba. mu charger le PV charger le PV. il a refusé ci la ci la dem yoonam nag dem toogi Touba. ci lañ ne ci la lañ wax ni maintenant le fait que le le capitaine a déserté. mais derrière le capitaine. y il y avait justement le général. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Mhm. qui a d'abord dit fais correctement ton travail je te connais la sa conscience may defal loolu. c'est les gens lui ont lui ont enregistré rapporté ko au président la le moom général dañ ko enregistré envoyé ko le président bi mu ne bi mu bi xeex bi jollee Jean-Baptiste ne notre rôle c'est pas de mater boobu tamit ñu envoyé ko le président. exact. moo tax ñu dàq ko. mais mais mais mais bokkum yéen du côté de Cheikh Omar Diagne vous avez très tôt pris